di nuyu sa directeur yi nga xam ne ñoom nga àndal di si cité nag Sirif Balde nekk doomu na Yoro Fula ñu ngi koy nuyu bu baax si teewaayam euh, di nuyu directeur Fera ak sa directeur de cabinet ak bépp directeur boo àndal monsieur le président yow dafa am loo tombeet il faut nga muñ président de la l'Assemblée nationale da nga tombeet YouTube TikTok

monsieur le ministre projet de loi bi nga xam ne tey moo tax ngeen ñëw fii muy muy serek ñu transformé ko moom ay laboratoire yoo xam ne tey dina permettre lépp luy dugg ci réew mi ci wàllu feer képp kuy def bâtiment ñu saytu ko ba nga xam ne dina jaar ci yoon par rapport ak bâtiment yi nga xam ne dañuy tabax ba yàgg ñu toog ñu ne étage bi daal am na ñu ñu faat projet de loi boobu ñëwee fii assemblée nationale lan la député war a def lu may wate maa paa nga toog naan ay sàcc sàcc de ñu fi doon wax biñ leen yóbbee justice mënuñu firnde indi benn kayit buñ mën a firnde ne lii sàcc la kon nag boo nekkee député topp di wax loolu ba tey Sénégal yi duñ la déglu parce que xam nañ ne ay kàcc la doomu aadama war na bañ bañ kàcc ak fen surtout maa jullit di fenal nit ki di wax lu dul dëgg te boo demee justice moo mënoo koy leeral loolu mooy lan nit dafa war a wax lu xam waaye wax ju ñaam waaye nag gémmañ guy nàcc borom du wax dëgg du wax jàmm gémmañ guy nàcc borom du wax jàmm de parce que bu ñu toogee fii naan ay ay ay kii dina nekk candidat kii du nekk candidat loolu passé nañ ko kuy nekk candidat ku du nekk candidat loolu justice ñoo koy wax ñun toppatoo wuñu loolu ñun dañ ne suñ suñ mbër mi mun candidat lay doon te kenn mënu koo tee nekk candidat ñun loolu lañ wax kon mënuñoo ñëw fii ne seen mbër mi du nekk candidat loolu dafa yomb yomb na Macky Sall bi muy def ba avant muy def candidat moom si boppam bi ñu xeex candidat Abdoulaye Wade bi mu demee ba xam ne mënutul nekk dafa bàyyi loolu yépp dem si askan bi ñu fal ko mu ñëw toog keneen ku bëgg loolu da nga def loolu wala doo fi nekk candidat lu leen jaral jaral nañ ñu lu ko ëpp bàyyi leen affaire candidat ñu wax si lu ñu fi indi fii lu ñu fi indi mooy askan bi monsieur le ministre balaa may jeexal dinaa wax si Boucole du Fuludu Boucole du Fuludu entre Dabo ak Madina Yoro Fula boobu sanc baa ngi dox normal entre Pata ba Nguduru sanc baa ngi dox normal mais diggante Nguduru ak Yoro Fula jaaxal nañu trop parce que ci ñu jox sanc ba travaux yi daal des na il faut nga taxaw ci mu gaaw comme ni ñëlee gaawee seen travaux pour loolu mën a régler beneen bi mooy Pata Kolda Pata Kolda lancé nañ ko xam nañ ko voilà mais war nañu gaaw entreprise bi jublu si Pata Kolda ñu ngi laa ñaanit it Carrefour ndoor na ba ndoor na ba buru ko dem Sénoba parce que route nationale la ministère yi sax foofu la ñu jaar ministre Moussa Baldé fu ne nii buy dem ko laa foofu lay jaar kon nag si yow lañ ko yaakaare ñu ngi lay ñaan loolu yëpp nga jàppale ñu si mu dem beneen bi mooy euh, monsieur le ministre ñi ne topp DRP bi di ta yàq xam nga xam nga lan la kañaan la mais duñ sénégalais am na député yu ñu indi fii boo leen laajoon nationalité duñ la ko wan bëgg naa da ngeen def si gëstu parce que sénégalais mënul fekk ñuy réaliser loo xam ne mooy yëkkati Sénégal réew yëpp di ñu ko nawee ñu am DRP am am ah am TER loo xam ne réew yëpp ñu si ñu ñu war yëpp kenn amu ko am noo xam ne dañ taxaw pour yàq ko ñooñ duñ sénégalais de nañ seet ñooñ amul nationalité sénégalaise merci Mariette Dien vous avez la parole Ahmed Ahmed Aïdara le suivant